sëriñ bi mu ne dafa dégg waxi sëriñ Basiiru ji dégg goo xam ne gu sori ci moom la nee na loolu nag lim ko indil rekk muy dégg gi moo di gën a sant rekk nag gën a sant sunu boroom mi nu booleeg sëriñ bi gën a sant sëriñ bi it mi nu fàggul lépp cant gi du lu mën a wax ci làmmiñam nee cant gi it du lu mën a wax ci làmmiñam suñu borom mi ngi boole sëriñ bi di mu ne li nga xam ne moom lañ ci mën a wax ci làmmiñam te mu bëgg leen koo dégtal mooy nga xam ngeen xam ne mu ngi sant sunu boroom mi nga xam ne moo nu sëriñ bi sant sëriñ mi nga xam ne moo nu fàggul lépp te boole nu ci boppam. mu ne pàgguteef boobu nag. yaqiin ci ne. am na yaqiin ci ne. Serigne Abdoul Hakim ci la bokk. ca Pàgguteef ba. nee na amu ca lenn lu muy sikki sàkk. am na am na ci yaqiin ju mat sëkk. ne loolu la koy firndeel rek. nii ko Cheikh Mamadou Bassir waxee léegi di ko fàttaliku. loolu rek mooy li am. ko sama xol eh, biñ ko junjoo foofa la ko tàmbalee sàmmee nag. ba keroog. bi mu tàggoog moom. waaye gën gën a santaat. waaye mu gën a santaat gën a santaat nag sëñ Abdul Hakim ci li nga xam ne suñ boroom defal na ko ko mu xamal ko boppam mu xamal ko boppam di liggéey boo xam ne di liggéey boo xam ne na mu ko xamale boppam na mu ko xamale boppam ni la ko liggéeyee liggéeyin wu rafet wu ma sëkk ndax loolu lu yéeme la ndax kenn ku ne ku ko gis ku ne ku ko gis ku ne teg nga sa bët ci loolu teg nga sa bët ci loolu xamal nga sa bopp loolu nga sa bopp it loolu mu sëriñ bi nee na mu gën koo sant. gën koo sant suñu borom. gën koo sante sunu borom. gën koo sant sëriñ bi. gën koo sant sëriñ bi. moom mi nga xam ne fàggul nañu lépp. moom mi nga xam ne fàggul nañu lépp. teel maa yëgal ne. te teel koo yëgal ne. hakim ci fàgguteef fii la bokk. ci fàgguteef yi la ma dund ak moom noona. nee na mu dund ak moom noona. dund suñu dund gi yëpp. nee seen dund gépp ñu dund ko ci loolu. gën gën a santaat itam. moom xam gi xam ci man loolu sama diggante ak moom. Euh, xam gi nga xam ne Serigne Abdou xam na ko seen digganteek moom ci noonu yi mooy li na ci moom si moom bu taxa neen loolu de sëñ bi neen na xam googe dajaa gën a santaat bu baax. xam googu xam. nee na xam googu ko sëñ Abdou xam. ak cant gu rëy lay dolli ko sama diggante ak moom. nee na ak cant gu rëy la dolli ko ci diggante moom sëñ moom taxa. ni ma koy tegtale rek ci sama diggante moom benn ci benn baat rek. nee na ni mu koy tegtale rek ci seen diggante ci benn baat. moom dama ko mayoon sama bopp. sëñ bi nee na moom dafa mayoon sëñ Abdou boppam. te yàlla rek nag tax. te yàlla rek tax. noonu laa dundee moom. nee noonu la dundee ak moom. nu bokk ci am yaqin ñun ñaar. ñu bokk ci am yaqiin ñoom ñaar. dundin ba yomb lool ci ñoom. nee na dundin ci ñoom. loolu eh, googu cant. nee na googu cant. daf koy seeral rek sunu borom. nee na cant googu da koy seeral rek sunu borom. di ko seeral rek sëriñ bi. rek sëriñ bi. bi muy borom liggéey bi. di santaat itam sunu borom. di santaat itam sunu borom. di santaat sëriñ bi. di santaat sëriñ bi. ndax lépp mooma. ndax lépp mooma. ci njabootu sëriñ Abdou Hakim ndax ñoom. ndax ñoom. sama xel daal na retiix ci ci ñoom ci teewu sëriñ Abdou. sëriñ bi nee na njabootu sëriñ Abdou Hakim gii. xelam dal na rëtëx ci ñoom ci teewug Serigne Abdou. ma am yaakaar ci ñoom yaakaar ju mat sëkk. nee na mu am yaakaar ci ñoom yaakaar ju mat sëkk. lépp ci teew lépp ci teew. ni nii lii sunu borom dogal. lii sunu boroom dogal. sunu borom moo xam. sunu borom moo xam. moo xam nu mu ko defee. moo xam nu mu ko defee. dafa naa ne. waaye nee na dafa woon na ne. sëñ Abdou Hakim moo koy mujj ginnaaw. sëñ Abdou Hakim moo koy mujj ginnaaw. looloo tax ci dundam. nee na looloo tax ci dundam. sama xel daloon da xelam daloon da xam ne bu ma bu ma ko bàyyee gannaaw. xam ne bu ko bàyyee gannaaw. la ma bëgg lépp. la ma bëgg lépp. ci liggéey bi. ci liggéey bi. lépp dana yomb ci moom. lépp dana yomb ci moom. dana ko def na war waree itam. dana ko def na mu waree itam. ndax loolu bind la ci moom. ndax yàllaa ko ko bind. ko ko bind. waaye nag suñ borom moo xam. waaye nag suñu borom moo na nee na lii bett na ko lool. waaye alhamdulilah rabbil alamin. waaye alhamdulilah rabbil alamin. nangu gim nangu dogalu suñu borom. borom. moo ma dimbale. nee na moo ko dimbale. ba ma ba ma mën a a nekk gannaawam. ba a mën a nekk gannaawam. xam ne lu ma xam ci moom. Eh, xam na ne lu mu xam ci moom. yàlla mi ko def ci moom. yàlla mi ko def ci moom. moo ko gën a xam. moo ko gën a xam. kon leneen lu mu def. kon leneen lu mu def. foofee rek laa koy delloo. foofee rek la koy delloo. moo xam. xam ne yàlla xam. moo xam li muy def moo xam li muy def. te am na yë am na yë am na am na yaqin ci ne. te nee am na yaqin ci ne. sunu borom sunu borom. lu mu def. lu mu def. ak defar ak defar rek lay doon. dana di wax ne sunu borom. nee na dana di wax ne sunu borom. moo nu gën a xam sunu bopp. moo nu gën a xam sunu bopp. waaye moo nu gën ci sunu bopp. waaye moo nu gën it ci sunu bopp. kon nee kon nee na léppam ak cant rek lay mën a doon ndax njabootam gii mu fi bàyyi ndax njabootam gii mu fi bàyyi am na yaqin ci ñoom am na yaqin ci ñoom bi leen sunu borom booleeg sëriñ Abdul bi leen sunu borom booleeg sëriñ Abdul Hakim bàyyi leen fi njabootam gii bàyyi leen fi njabootam gii eh, la nekkoon ci moom day te la nekkoon ci moom day. am na lu nekk ci ñoom. am na lu nekk ci njaboot gi. loo xam ne bàyyi na ko fi. loo xam ne bàyyi na ko fi. kon loolu moo tax. kon loolu moo tax. sama xel dal ci ñoom xelam dal ci ñoom la teex. loolu yàqin laa ci am. nee loolu yàqin la ci am. kon nag ñoom ñii. nee na kon nag ñoom ñii. xaasal leen ngeen ànd ak ngeen ngeen ànd ak ñoom. yàlla xaasal leen bokki taalib yi ngeen ànd ak njaboot gii. ginnaaw eh, sëriñ Abdul Hakim. ginnaaw sëriñ Abdul Hakim. bu ngeen gannaaw ba ngeen santee. gannaaw ba ngeen santee. ci li leen suñu borom defal. ci li leen suñu borom defal. ngeen gannaaw ba ngeen ko xamee. gannaaw ba ngeen ko xamee. jëfee rek ci des. góorgóorlu jëfee rek moo ci des góorgóorlu rek. góorgóorlu rek moo ci des nañ góorgóorlu bu baax. la la lañ ca mën a yëngutoo. lañ ca mën a yëngutoo. ci li sunu borom defal ci sëriñ Abdou Hakim. mooy nu góor bu baax. góorgóorlu ci njub bu baax a baax. ci njub bu baax a baax. ndax moom yàlla da ko bindee. ndax moom yàlla da ko bindee. te njub. te njub. lépp lu baax. mooy buntub lépp lu baax. mooy buntub diine. mooy buntub diine. mooy buntub taalibe. mooy buntub taalibe. mooy buntub tedd jikko yu tedd yi. mooy buntub yu tedd yëpp. jub bu jub amee. bu jub amee. yooyu yëpp day yomb. yooyu yëpp day yomb. loolu nag bu àndee. loolu nag bu àndee. jëf yàlla jëf jëf jëf ju baax. mooy doon jëf ju baax. ju sell ju sell. ju sunu borom bëgg. ju sunu borom bëgg. ju sunu borom tànn. kon nanu góorgóorlu ci njub rek. kon nan ci njub rek. lu mu ciy teg ñu door ko bu góorgóorloo ci njub. bu nu góorgóorloo ci njub ba noppi. ba suñu xel dal ca. ba suñu xel dal ca. fonk suñu ndigal dana yomb lool. fonk ndigal dana nu yomb lool. te ndigal yi. te ndigal yi. ndigal yàlla ci jiitu. ndigal yàlla moo ci jiitu. topp ndigal. topp ndigal. topp ndigal yàlla yi kem kattan. topp ndigal yaay yàlla yi kem kattan. wattandiku tere yàlla yi kem kattan. wattandiku tere yàlla yi kem kattan. loolu. ku am ku ku sa xel dal ci njub ku ne. loolu ku sa xel dal ci njub ku ne. loolu rek ngay daal di song. loolu rek ngay daal di song. góorgóorlu ci góorgóorlu ci. bu nu ko defee. bu nu ko defee. góorgóorlu bu baax. nu góorgóorlu bu baax. yittewoo suñu diine. yittewoo sunu diine. jéem koo xam. jéem koo xam. lu nu ci suñu borom cërale. lu nu ci suñu fonk ko bu baax. nu fonk ko bu baax. di ko jëfee suñu kem kattan. ak taalibe. dara du sotti lu dul moom. dara du sotti lu dul ak taalibe. mooy tax sunu borom nangul mooy tax sunu borom nangul nu sunu lislaam. mooy tax sunu borom nangul nu sunuy jëf. mooy tax sunu borom nangul nu sunuy jëf. moo nuy may yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira moo nuy defar tey moo nuy defar ëllëg. moo nuy defar tey moo nuy defar ëllëg. loolu. loolu. lañ cay daal di yëgee. lañu cay daal di yége mooy texe rek. mooy ak texe rek bu jëm àllaaxira. li ma li mu bëggal boppam rek la mu bëggal. mënoon dama koy sotti ci yéen. nee na lim xamit bu ko mënoon da ci noonu. ni muy doxee dañ koy ànd. ni muy doxee it bu sañoon dañ koy ànd. ndax yooyu ndax yooyu mu wax. noonu la. noonu rek la xeeb naa bopp lool. nee na da cee xeeb boppam lool. nii ma leen wax rek ci laa laa ci nekk. nee nii mënu wax rek la ni ci la ci nekk la. bu baax. nee na xelam dal na bu baax. ci njabootam seen kanam. ci njabootam gii nekk ci seen kanam. yéen fekkoon na. nee na yéen itam fekkoon na. ndax ahlul minan mën nañoo taxawal njabootu sëriñ Abdul Hakim gépp. ndax ahlul minan mën nañoo taxawaaleel njabootu sëriñ Abdul Hakim gépp. waaye ahlul minan fekkoon na. waaye ahlul minan fekkoon na. sama xel daal ci ñoom rek. nee na fekkoon na xelam dal ci ñoom reteex ci ahlul minan ndax ci tawfeex yi sëriñ Abdul Hakim. ndax ci tawfeex yi Abdul Hakim. ak xaasam ak xaasam. ci lañ amee loolu ñu am. ci ngeen amee li ngeen am yéen ahlul minan. nag du caaxaan. ne loolu nag du caaxaan. loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg. ndax yóbbu sóobu yoonu baax rek la. ndax sóobu yoonu baax rek la. yoonu baax. yoonu baax. moom dong la. moom rek la. tur bi. tur bi. Euh, nee na tur bi xaas la juleen ko sëriñ Abdul Hakim xaasale woon. mu day nag yóbbu lu àdduna ak boobu alaaxira kon la ca des rek. kon la des rek. mooy góorgóorlu bu baax mooy góorgóorlu bu baax. fas yéene doon ay jullit. fas yéene doon ay taalibe. fas yéene doon ay fas yéene doon ay taalibe. fas yéene doon ay nit ñu yiw. fas yéene doon ay nit ñu yiw. ñoo xam ne dañuy jëfee jikko yiw yi. ñoo xam ne dañuy jëfee jikko yiw yi. mooy makaarimul axlaaq. mooy makaarimul loolu kat. loolu kat. moom la ñu fi sëñ Abdul Hakim bàyyil. moom la mu fi sëñ moom la ñu fi bàyyil. ñëpp. ñun ñëpp. ku sa xol nekk ku sa sa koo xam ne sëñ bëgg sëñ Tuubaa nekk na ci sa xol. koo xam ne bëgg sëñ Tuubaa nekk na ci sa xol. sëñ Abdou Hakim doy na la soññ. sëñ Abdou Hakim doy na la soññ. lim la fi bàyyi li tam. lim la fi bàyyi li tam. doy na yóbbal sëkk. doy na yóbbal sëkk. nee noonu na sedd na bu baax nee na xolam ci yéen tey doo waaye xolam gënaat naa sedd xelam gënaat naa dal yaakaaram gënaat naa dolli ko waaye laxasaayam gën naa dëgër parce que yéen a gën a ànd ak yéen jërëjëf sant nu itam nag nun njabootu Serigne Abdoul Hakim gépp noo ngi doole santaat mboolem lii nga wax nun rekk nga ko waxal ba Bassirou waxoon na lépp la Serigne Abdoul Hakim jàngale woon ci yow ak la nga jàngale woon Serigne Abdoul Hakim waaye loolu lépp danga na ko jàngalaat tey jàng gu yees nu bokk ko déggaat nga bokk nu soññaat bokk nu dimbaliwaat man jàpp naa ñi gën a dimbandiku tey ci laa bokk ci jataay bi ndax démb dañ ma àndil photo bee carte bee ñaar la woon bu njëkk ba dañ caa bindoon zur man tuhibbu wa in chattat bi ka daaru wa xaale min doonihi sahlun aw aaru tey ñu bindaat laa yam na annaka bondun min ziaratihi innal ba li man yahwaahu zawaaru te man damaa jàppoon ne boobu man la ñuy waxal si Sëñ Abdou Hakim cofeel gi yàlla dogal gi mu yàlla dimbalee suñu diggante waxtu wu ne ma ni ko jeneer waxtu wu ne ma jàpp ne maa ngi nekk ak moom bayit woo damaa dimbale woon waaye yaa nu ko leeral tey danoo àggul ci am basiira waaye kon gëm na ni tàggoo woon ak Sëñ Abdou Hakim te loolu ci leen mën a jariñoo nun ñëpp nu gëm ne noo ngi ànd ak Sëñ Abdou Hakim sëriñ bi nag jàngal nañu li nu sëriñ Abdou Hakim bàyyee nan fas yéene sax ci loola ci la suñu njëriñul tey ak ëllëg nekk nu maasewaat rek ñaanal rek suñu borom mu bàyyil nu fi sëriñ bii mu àggale yéenem àggale yéene sëriñ Abdou Hakim ndax xam naa ne ñoom fa ñu yéenante woon nañu woon ñoom rek ko ñoo ko xam waaye kenn ku nekk da ngaa jàppoon ne sa morom lay mujj ginnaaw àggaleel la waaye sëñ bi nee na suñu borom la gën def na ko kon foofu la fa la ñu mën a jàngee ci loolu waaye nan fa suñu borom bàyyil sëriñ bii sëriñ Abdou Hakim suñu borom fayal na ko na mu ko bëggee foofee sëriñ bi nee na da cee am loo xam ne nag làmmiñ da ko dul mën a laal waaye ah, sëriñ bi nee na sant na suñu bu baax a baax ci sëñ Abdou Hakim ci boppam. damaa tëdd guddi gént mu ñëw ci kër gi mu ngi sol completu grand bu weex yor koppati ne ma man day sëñ si di ma ne ko Mbàkke ma ne ma damaa am ndigal. bu ma toogee ba yàgg ma ñëw ci kër gi su seet njaboot gi nu ñu toogee ak taalibe yi ñu toogee lii de moom moo ko wax netti naa ko sëñ Seex euh, te ba mu fa jógee itam dafa maa wax ne ma maa ngi dem dama bu ma jógee fii damay jaari euh, njaañ xam naa jaari nga njaañ du dara lu weesu euh, béréb sëñ boobee fa nekk itam defoon fa jàkka ja defaraat ko loola mooy sabab si jaari nga njaañ waaw jaar yi damay jaari njaañ moo jógee fi damay jaari njaañ loolu la ma wax